Don Diego ma doonoon présentateur ci këru taskatu xabaar bi léegi di 2S TV ginnaaw ab diir mu jógee fa nag ci interview bu mu mosoon sekk ak suñu naataango yu diaspora 221 doon def nag ay révélation de taille ci nag gestion wu këru taskatu xabaar bi léegi di 2S TV waaye itam jóge ci loolu wax ci ki nga xamante ne nag moo di rek borom kër ga El Hadj gannaaw loolu woo yëkkati nag ay kàddu yu teg newul moom rek ki nga xamante ne moo di Don Diego teg ko ci ki nga xamante ne nag moo di borom kër ga tontuwul benn yoon ci nag yooyu la kàddu. daal ne nag biral ab plainte bu ñu sukkandikoo ci suñuy naataango yu kaw kawteef nga xamante ne nag ñoo daal di joxe boobu la xibaar ginnaaw loolu eh, kii di Don Diego demoon na nag répondre ci rek convocation mi nga xamante ne moom la ñu ko joxoon ba mu demee nag lañ ñu ko daal di ñibb téye mettre ko nag en garde à vue mu doon arrestation boo xamante ne nag moom lañ leen doon baaxee ci ki nga xamante ne daal moo di Don Diego eh, jamono ji mu ngi ci loxoy yoon